dañu mel ne man and ak man jëm fu ma jëm tàmbalee turu yalla dañ ko fonk ba addis ba wax ne lu ñu wu turu yalla du am barke ba barke ba day manqué mu ne kon nag seen mbiri am solo yépp dañ ko yalla ar rahman ar rahim dañu bok ci turu yalla yu mag yi bilang bi nak mom day ëpp ar Rahman yàlla mi yërëm ci àdduna ñëpp ñëpp ba yërëmaale sax ñay weddee ka mooy arrahim nag mu jagleel ko yërëmaande àllaaxira ja nga xam ne ñu gëmoon rek la fa yàllay yërëm yërëmaande ju sell ju dara raxut loolu mooy julli ci yonante bi ñaan yàlla dolli ko ak jàmm sunu borom noo ngi sàkku sa ndimbal te kat xam nañ ne yow rek am ndimbal ci yow rek it la ñuy sàkku ndimbal nun day doyloo nanu yàlla te yàlla ku ko wékk say mbir rek wékk nga ko ku doy sëkk sunu boroom dama bëgg nga sereel ma su mbindeef yépp yépp seereel ma rawante na mboolem say malaaka ci seen biir it rawante na malaaka ya nga xam ne ñooyanu aras dama bëgg nga seereel ma sa mbindeef yépp seereel ma ne man day gëm naa ne yow rekk yaay yàlla yow rekk ay buur lu bokkuta yow ak lu bokkuta yow ak fu bokkuta yow yaa ko sàkk moom ko muy sab jaam rekk kenn bokkut ak yow dara dara ma bëgg it nga seereel ma sa mbindeef yépp seereel ma ne man gëm naa ne muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa jaama di sa ndaw loo yónni muy sa ndaw faw ba bis penc bi yàlla mi ko bind dafa defoon ci moom gëm goo xam ne moom yàlla rekk moo xam na mu toll réyaayu gëm googu tax na tubaab yi nga xam ne ñoo di ay noonam da leen daa wax naa li ma bëgg daal mooy bu ëllëgee ba yàlla boole ñépp ñépp ci benn pàkk kam njëkk a sàkk ba kam mujj a sàkk dama bëgg rek booba ngeen seereel ma ne man dey mësuma am benn buur bu may yàlla moom rekk mooy sama boroom ngeen maase ci seeral ma itam ne gëm naa ne muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy ndawam limu mu doyloo ba yónni ko ma def ko nag sama wéeruwaay def ko muy ki dox sama diggante Sabarom, boroom lépp lu mu digle ma xamné yalla ko diglé japp ca lepp lu mu tere ma xamné yalla ko téré sori ko lol ini bu bis pencé ba ñepp ñepp téw na ngeen mako ba mu né inni nasara turra في أرضهم لمالك مضطرة تيقنوا بأنني لله عبد خديم لرسول الله ولتشهدوا لي بقولي معا يوما جميع العالمين جمعا الله ربي واحرا وباطنا حيث أكون راحلا أو قاطنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على عليه يا رك داي مو ام تخي مو خامني بوكو ماي جامبي جامبي مانا سوري اك موي باتا يالا ام كاتام مان كو ماي جامبي جامبي جيفي توپ يالا وسل سيل گمو گرم جامبي تي amul pexe amul katan yalla rek yalla rek ko mëna may pexe katan la ilaha illa allah dafa ambu lepp ñu wara gëm ci yalla ci bopum muhammad rasulullah ambu lepp ñu wara gëmaat ci gannaaw yalla ci mbollem pass passi l'islam motax mu andi baat bobu la ilaha illa allah muhammad rasulullah julli ci yonante bi ne yalla yow rek day ya amé tawfiq yàlla na nga ko defal yow képp it la ñuy jaamu du ñu jaamu kenn ku may yow yow rek ki la ñuy ndimbal du ñu ndimbal ci keneen señ bi talif da bok ci wa tuddu ahmadu bamba maamam mu ñëk tudu tuddu habibullah wajuro mom muhammad la tuddu señ mi ne ko sali kan waye habibullah ji nak moy mam mu ñëk mo jur mamorant sali mom le kon señ bi talif ci wa mbakki la tuddu ahmadu bamba mamu mu ñëk habibullah mom nak moy talif di yaakar yermande yalla ku ñewantem te tambalé ko ci wax ne mi ngi tambalé sante yalla mi nga xamne dalewul fenn mësta ñak ben yoon te lool nak melalo wo xamne kenn du ko ci fekk ku bokk nak mom rek moo la sàkk am nga foo dale ba mu la sàkk gut booba amoon woon gannaaw bi mu la sàkkee nag nga am daldi am foo dale moom nag moom amul fenn foo xam fa la dale mësta ñàkk benn yoon muy koo xam ne jurut kenn kenn juru ko lu bokkute moom rek moo ko sàkk mu dig jaamam waaye amutub nawle amul ku ko juru mbaa ku mu jur yàlla moo sàkk mbindeef yi ci kaw coobareem rek du daa am aaju joo xam ne daa bëgg bu leen sàkkee ñu fajal ko ko ba daa loro loro ba mënta ñàkk sàkk mindeef déedéet da koo soob rek mu sàkk mindeef ci kaw coobareem rek waaye du jenn aajo jum aajo wo jëm ci bindeef yi mu sàkk ba jenn lor joo xam ne moo tax mu sàkk leen mi ngi tudd sellu yàlla di ko soreelal lépp loo xam ne xeetu manqué la gu ci moom muy buur boo xam ne daa man lépp sañ lépp amul lum tële lu deful rek da ko narut waaye lépp la man lépp la sañ lu ko soob rek def lu ko soobul bàyyi ci coobareem ñenn ci ay jaamam moo leen baaxee ñu gëm te rafetal ñenn ci ay jaamam nag mocc leen ñu sànku weddi tay moy loolu lépp coobareem la shihak bi firé firee da di bant buñ daan def ci gimiñu ab gatt ndax bañ mu namp xeyna itam ñu def ko leneen lu bokkul ak gatt yonante bi bi mu dikkee jot yéefar yi wooteb tawxiid bi muy woote bu sell leer naññ mënuñ caa teg dara dara dara moo tax mel ne dafa ngalaab seeni gémmiñ ñoom yéefar ya mënuñoo waxati dara dara xanaa kay xeex ko ci doole ak ne du fi jibi rekk lañ mën waaye mel na ne ku yeew seeni gémmiñ amatuñu lu ñu mën a wax mu ne nag yonent bi yàlla yónni mu dikk jottalee noonu yéefar yi jottali bu leere noonu yàlla na ko yàlla mi ko yónni saxalal teraanga ak jàmm yonente boobu ahmad la tudd yàlla yónni ko jox ko alxuraan ba mu dikkee nag alquran ji mu indi luum loona wedam loona mboolem saay saay si nga xam ne ñoo doon jéema weddi yàlla yalla yalla boole ci teranga jek ak jamm ji kep ko xamni ne la won te ko mo meenante bi ak mbollem sahaba mi moy mboolem ña gison ko rek tafaatu ci gem ga ak kep ku bok ci xetam rek di jëm roy ci yonante be ki gayam yal yalla boole ci teranga jek jàmm ji te lepp limu ñaanal yonante bi rek moy teranga ak jamm bok ay sahabam. ak sahabaam ak mboolem xeetam wi la bëgg rek yàlla saxal ko ci ñoom moo tax mu aj ko ci kaw li fekk nga xam ne ku gëm yàlla gëm goo xam ne da ca am firnde ak i tegtal yu wóor a wóor ba mel ne ni ko wóore ne bu ne ci benn lay tàmbalee ku mel ne kii na muy féetee kaw ka nga xam ne gëm na sax yàlla waaye amu ca benn tegtal mbaa am na ca sax ay tegtal waaye dafa dégg rek ku ko wax mu roy ko ca waxe na mu waxe te xamul sax kooka fu mu sës ay waxam ku njëkk ki faw mooy féete kaw ñaar ñii li fekk looloo ngi am nag yàlla na yàlla saxal teraanga ji ak jàmm ji ak barke ba ci yonante bi ak i mbokkam ak i sahabaam ak képp kuy jéem a roy ci ñoom di rafetal rek ba bis penc li mu leen njëkk xamal na gannaaw sant yàlla julli yonante bi mooy xam-xam moom moo gën lépp lu ñuy fonk di ko donante ci ay baay ak i maam ak i maamaat ak ne lépp lu ñu fonk ba di ko doonante noonu xam-xama ci gën te it lépp lu yàlla may ab jaam muy njariñ xamal ne xam-xam moo ci gën mboolem njariñ yàlla defal ab jaam daal xamal ne xam-xam moo ci gën gannaaw bu mu taggee xam-xam yépp wax ne xam-xam moom moo gën lépp lu ñuy fonk ba di ko donante ci ay baay ak te xam-xam moo gën lépp lu yàlla may ab jaam muy njariñ mu ne waaye na tawhid moom da caa raw lépp lu waaye di yank ndax bëgg bu duggee ci bàmmeel ak bu taxawee bis penc mu amal ko njariñ xamal ne tawhid moo ci féete kaw ndax mënees naa wéetal yàlla jotu laa jëf sax jeneen jëf teg ca daal di faatu rek daal texe waaw manees naa gëm yàlla wéetal ko rek jotu laa jëf sax jëw jiwu daal cay jaare texe te nag wéetal gi moom bu fekkee ni amut amul leneen lu mën a def ba tax koo jariñu baa ba tax koo texe baa ba tax koo mucc ñàkk wéetal moom muy bokkaale moom mooy la yóbboo ca sawara nga xam ne yàlla dana baale xeeti bàkkaar yëpp yëpp te sax lu bokkut ak shirku mën naa jekki-jekki baale ko te kooku tuubu ko waaye shirku moom bokkaale faaw kooku da koy tuub njëkk dellu ci wéetal yàlla dool ko ko jéggal mu nekkoon nag tawxiid moom moo gën lépp lépp ndax mënees na ko am moom dong nit ki rek tuub tey tey tey wéetal yàlla daal di faatu fi saasa fi daal dem àjjana ci jëf te jëf sax leneen lu ko yóbbu àjjana man nag ñi yeewu te xàmmee taalif gis nañ ba tàyyi waaye gisaguñ taalif bu mel ne wii nga xam ne moom la al imaamu Sanusi def ci wàllu tawxiid daal ñoom ñu xàmmee taalif gisaguñ wu ni mel loolu moo tax nee na ñaan ci dongo yi ne ma dama bëgg daal nga woyal nu wesaru Sanusi woowule nag naka ñu ma ko wax ma jóg fi saasa saasa taxaw temm temm ci defal leen ko niñ ko bëggee di nak nag ci yalla nga xam mo meuna dimbalé mu dimbalé ma ci yen yalla bi dimbalé nak dal may dimbalé rek ma talif ko ni mu talif wo xam ne ak te ëmb na lu yiw mucc ci lepp lu ay day dakk sax lepp lu ay ba manes na wax ni sax day jamia, mania jamia moy ëmb na lépp lu ci war a nekk maani am mooy dara dara lu ci waruta am amu ci muy ñoddi wépp yiw di jiñ wépp ay mu ne lu bare bari sax dama nga gis béréb ma yokk fa loo xam ne amutoon ca wesor wa man maa ko yokk foofu rek ndax bëgg ki nga xam ne xelam daa xaw a gàtt buy jàng téere bi rek man caa jariñu bu baax a baax kon nak neena la asanu si wasaron mom la soppi way ba noppi nak tudde ko mawahibul quddus yalla mi bur, te mom rek mo meuna musale yalla non boole musal ci ayu shaytané ak ayu ak ayu kep ku añaan ba noppi di jëfé kañaan nga kan yalla def téré bi muy téré bo xamné dal day taxa mucc ci sawara dal di waxu rek wuti aljana yal yàlla def téere bi mucc set wecc ci lépp loo xam lu ko mën a ayuba la daal bañ koo jegee bañ koo laal te mu ñoddal nu ay xéewali xéewal yu bare bare maa ngi ñaan yàlla mu defal ma ko mi ngeen yóbbal fa nga xamee ne fa la yóbbal baaxe te loolu mooy te dala ca bàmmeel jëme ci bu ñu dekkee ba ñuy jiital nit ñi jëme ci fa ñuy taxaw ak bu ñu taxawee foofee ci bis penc maa ngi ñaan yàlla képp koo xam ne rek mokkal nga téere bi mbaa nga xam maxnaa yi yàlla aar la musal la ci lépp luy fitna loolu lépp nag maa ngi koy ñaan ci darajey yonante bi ak darajey yonante yi ci des ak darajey wàllu yi ak darajey boroom xam-xam yi jëfe seen xam-xam waqante wi ak ñaan gi képp kuy jàng mbaa ngay déglu rek yaa ko moom dane yal na la yàlla may jub ak wërsëg wu yaatu xamal nag ne yàlla day moom am na te dalewul fenn du yem fenn sàkkul boppam kenn sàkku ko moom nag moo wëlbatiku sos lu ko soob ci coobareem ak kàttanam ndagam moom nag yéetoon na di moom rek ba mu sàkkagul dara dara gannaaw ba la sàkk lu ko soob dana delluwaat yéetaat ba muy moom rek gannaaw bu raafalee lépp lam sàkkoon way ca topp mooy bëgg firi wii laysa min shay'in mooy yàlla duñ wax ne mu ngi amee ci matière sàngam xam nga nit dangay wax ne ñu ngi ko liggéeyee ci suuf jinne nga ne ñu ngi ko liggéeyee ci sawara waaye yàlla moom mënista wax ne matière sàngam te lañ ko liggéeyee waaye yàlla am na te mënista wax ne ci matière sàngam ci la bawoo kenn du wax ne yàlla ci nangam la bawoo mooy yàlla dafa nekkul ku ñu sàkk moo tax wala fihi mooy yàlla nekkul ci biir dara dara dara te xam nga mu nekkoon ci biir asamaan mbaa mu nekk ci diggante asamaan ak suuf mbaa mu nekk ci biir suuf si kon daal di yomb a takk ñu ne kon yàlla génnul asamaan ba génnul suuf si ba génnul biir suuf si wala fi taxtihi mooy yàlla nekkul ci ron dara bu nekkoon ci ron dara dara tiim ko kon loolaa ko féete kaw wala xalihi mooy yàlla nekkul ci kaw dara ndax bu nekkoon ci kaw dara day mel ne kon loolaa ko taawu te loolaa ko ëpp doole fa lay sa maxluuqan dir mi ku ñu bind moo dellu ci walay sa min shay'in bu nekkoon ku ñu sàkk faaw du ñàkk matière boo xam ne ca lañu ko sàkke wala maxsuuran te bu ko ñu takk wala maxsuuran moo dellu ci wala fiihi bu yàlla nekkoon ci biir dara ñu ne kon yàlla génnut nàngam di génnul asamaan ba génnul suuf yàlla di su ko takk ci biir dara walay sa maxmoolan biir mi kuñ yaru nag mooy dellu ci wala xalehi fekkoon ne dafa war ci kaw dara loolu yanu ko day mel ne kon loolaa ko ëpp doole te moo ko taawu wala maqxooran du caageenu muy ku ñu not du caageenu muy ku not nag moo dellu ci wala fii taxtihi yàlla nekkul ci ron dara ndax bu nekkoon bu nekkoon ci ron dara loola féete ka kaw day mel ne kon ko not daa tudd seetlu buba bi nga xam ne mindeef mënta fexe fexe ba xam ko moom rek moo xam boppam ba tey mindeef lot na ci sant ko cant ga yàlla ci moom moom rek moo mën a tagg boppam moo mën a sant boppam cant ko yelloog moom li tax mu ne yàlla rek xam yàlla mooy daa amul moroom su amul moroom boo xamee moroom ma ne yàlla moo kii ñooyemoo ba te yàlla amul jamono amul béréb ndax jamono béréb ci mbindeefam rek la bokk da koo soob rek mu sàkk jamono sàkk béréb te it na mel naka jekk ba mu sàkkagul jamono béréb noonu la mel ba tey wala lahu jinsun mooy yàlla amul aw xeet ndax bu amoon xeet yomb xam nga ne kon yàlla daa bokk ci xeet sàngam waaye yàlla amul xeet lépp lu xel di xalaat aka wëlbati rek xamal ne yàlla wuute naag loola yàlla xel mënu ko takka karoot tey ñaan suñu boroom mu musal nu ci pexem saytaane musal nu ci rekki gëm rekki gëm mooy yàlla xéerali nit gëm ba noppi gannaaw ba nag mu nangu ko amatul gëm lool yàlla musal nu ci seytaane musal nu ci ay pexeem musal nu ci rekki gëm ci darajey yonante bi ak mboolem gaa yu baax ya yàlla yàlla na nga nu xiirtal ci sax ci def na nga bëgg te gërëm ko te sori lépp loo xam ne bëggoo ko